C'est par rapport à l'élection législative Nous rappelons que ni c'est des élections yo xamanteni yu am importance capitale ci le président de la république C'est ci li nga xam moko déssé euh, ci deux ans yi nga xamanteni tay mo deuxième ci suñu deuxième euh, mandat donc euh, président de la république ñu jëm ci ay parrainage madame le ministre depuis Dakar mu envoyé ñu ay fiche de parrainage nañu wacc leen sur le terrain recueillir les parrains Nous ñu jëkkee ko sur les grands électeurs parce que nous avons les grands électeurs Nous disons ci que ce travail là nous def ko mu des nag responsable yi am APR structuré en termes de comité en termes de comité de quartier ces comités de quartier ils sont structurés et je pense que nous, ñi avons une banque ñoo yor euh, parti bi dañuy liggéey ak comité de quartier chaque présidente de comité wala chaque président de comité dañ lay jox say fiches nga dem ci sa quartier def recueillir ay ay ay je pense que 38 000, nga xamante ni dañ ko demandé voire 50 38 000, nga demandé eu des demandé bu ñu ko des demandes ak madame le ministre Mariama Sarr dina ko motal mais duñ ko ko bàyyee moom rek parce que APR dafa am ay part dafa am ay responsable je ne ku ci nekk war jouer ce partition non ñun ci côté boobu ñi ngi ci ñi ngi ci liggéey liggéey bu mucc ayib te bu ñu waree dem jébbal ki ñu war a jébbal euh, suñuy suñu li ñu recueillir ci ci ci parrainage yi dina constater on vraiment li ñu en 2019 ci parrainage on va faire de même ou bien doubler même la la la mise donc loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey ju bu mucc ayib di woo ñi nga xamante aussi ay responsable lañ ñu def la même chose ni fàtte aussi li nga xam ne dafa jàll li nga xamante ni ci élection locale yi dafa am amna mais amna lu nek suñu kanam te ñu wara a pour l'entrée de du président de la république de son excellence parce que président de la république a kaolak mérité wul li fi amone donc ñi nga c'est des responsables de l'alliance pour la république c'est des responsables de Benno Bokk yakar ak président Macky Sall considération ak respect bi mu am ci la coalition Benno Bokk yakar fim len tek je pense que président Macky Sall li mu mérité nous, dans la région du sud Saloum moi qu'on se batte corps et âme qu'on fasse le maximum pour que le président de la République parrainage le maximum au niveau euh, de de de Kaolack mais aussi ci élection yi bu a ca mais mais y a un pourcentage pour rompre les 60 et quelques pourcents. donc je pense que c'est possible mais dans la main quand si a bu ñu une union def quand même un dajaloo dajale suñu doole je pense que mën nañu am lu raw loolu et que li ma gis muy destiné wu te madame le ministre woté ko parce que Aly Ngouille Ndiaye je rappelle bi fi ñëwé dafa né je suis très ouvert pour que ñu waxtaan ñu concerté wu pour que président Macky Sall bi nga xamné ni moy suñu njiit limu soxla tay ci kaolak mu mën ko am donc ci conduite bobu ci ligne directrice bobu la teg nga besoin c'est collaborateurs mais ci la tek c'est ses militants pour que nous nek pour que le président de la République euh, le soir du 21 de 31 juillet 2022 mu gagner les élections haut la avec un pourcentage vraiment à ne pas quand même contester